amoon nañ ko daaw ak li ñu am ren li ñu am ren moo ko ëpp déjà ci périmètre yi nga xamante ni bay nañ fa soble euh, li ñu constaté ren gii boo ko comparé ak daaw à la même période daaw gisoon nga heure bi prix bi yéegoon na ba commencé jaaxal nit ñi ren gii prix bi wàccoon na ba commencé sax jaaxal baykat yi donc c'est l'effet inverse loolu mooy lay woon ni produit bi bari na ci marché bi waaye xam nga ñu ne la confiance n'exclut pas le contrôle. Mm-hmm. bu ñu weesoo li nga xamante ni mooy tabaski dinañ jugaat ci tool yi. xool comme nu ñu xoolee nii nga xamante ne mën nañ taxaw fii wax ko suñu akulaay taalaa te xam ne lu ñuy wax dëgg la bu ñu paree ci tabaski bi dinañ jugaat ci àll bi. xool li nga xamante ne ni moo fa nekk. ren boo xoolee ñu ngi ci 300 francs mais comme euh, marché bi day réguler lu boppam am na benn marge boo xamante ne ni wax dëgg fa yàlla bëgg nañu ñi bañ koo dépasser. bu ñu ko dépasser dañuy tombé ci li nga xamante ne ni moom mooy daaw. te boo tombee ci loolu rek problème mu marché bi mooy bu yéegee pour nga waat ko day jafe.